daf fi nekkoon premier directeur ci école bi euh, loolu moo tax ñu bëgg symboliquement commencé ici pour voir li ñuy def yëpp ci Sénégal bi année bi dinañ plus de 3000 kits ci Sénégal dans toutes les toutes les régions et loolu moo tax ñu ñëwoon fi pour jox euh, kits scolaires parce que dañu gis ne souvent ci affaire de euh, éducation pour les yi dañuy jox xale yi rek mais duñ ci duñ ci fagaral trop xale yu am problème dégg wala wax wala gis tamit te loolu ñoom ñëpp dañoo am seen place ci ci communauté bi ñoom ñëpp c'est des citoyens sénégalais comme tous donc nous devons dañu war a tamit di leen di leen dimbale ak ces kits scolaires là donc année bi la fondation commencé di dimbale xale yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci dégg wala wala gis mais au fur et à mesure ci année yi dinañ gën a augmenter suñu suñu dimbal ngir ci xale yooyu. fondation Kébémer dafa comprendre ne. cartable wu xale bi nga defal ko ci ay jumtukaay yu muy jàngee loolu moo gën a jege élève yi te moom muy gën a mën a teg bëtam te moo ko gën a yokk doom pour mu gën a jàng ndax ñun ñu ngi ci système bi mais xam ne li xew gis ay njaboot yoo xam ne nii seen doole demewul noonu ñu toog ba weer ba ñaari weer te duñ jëndal seen doom fourniture donc ñoom bu ñu ñëwee tàmbali seet élèves yi ci gën a xarañ ñu jox leen ak même ñeneen élèves sax ñu jox leen boole yamul fii dañ ko nar a def ci juróom fukki école ak juróom ak juróom yu nekk ci biir Sénégal yëpp. dama fondation Keba comprendre nañu lan de euh, cartable bëgg présidente bu baax vraiment xamal le ministre de l'éducation nationale bi nga fi taxawal nga fi secrétaire général bi ci de Nous fi ba taxna ñu rafetlu vraiment geste def te ñom xamnañ fuy metti te fofu lañu tek seen